rawatina lii quotidien nee na Sénégal mbootaayu xeet yi ma ngi koy tàccu nan kon ak ak fu doomu aadama kay Sénégal yaa ca mën yaa ngi defi jéego discrimination boddi konte amul sam réew yaa ngi sàmm ak ak yelleef yi lii quotidien naan man moom mbootaayu xeet yi ma nga naan Sénégal yaa mën Dakar Times mel ni ku naan ko ci Afrique sowu jant day démocratie ci boppam ay kàngam ne ñu dafa manqué ci denduk Afrique tribune yéen a kaay ne ko xanaa déggoo téeméer ak ñeent fukk ñaar ci ñoo xam ne ay universitaire lañu ña ngay sàkku président Macky mu daal di libéré Ousmane Sonko ña ngay na lu jàpp gi nga xam ne mi ngi am ci réew mi te lii nag mi ngi raam jëm ci ñeg bi te bés bu fa àggee man la dana am kër goo xam ni maar day taali ci réew mi turbine yéen a kaay naan kon déglu ma Serigne Diop ancien ministre de la justice ak benn juge boo xam ne ma nga nekk ci cour africain bu droit de l'homme di Aliou Sall ñoo bot combat bi mani la di sàkku ci président Macky sal nag mu di waat dal ci réew mi ndax réew mi mi ngi jëm ci guuta te ngir dal am ci réew mi dañ koy ñaan moom président Macky Sall mu daal ay détenu la ñu libération mel ni ku naan kon tey la làmbaay gën a ñaaw tribune yéene kaay nan ko déet universitaire yaa ngay wax di nee nañ ko daanaka état de droit moom dañ koy dégg équité dañ koy dégg ñu ne ci régime boo xam ne day caxat-caxatee àq ak yelleef yi régime boo xam ne respecté wul askanam régime boo xam ne daanaka mi ngi jàppay opposant état boo xam ne dafa mel ni na ku jéppi ab société am féewaloo ak ñoom di dal seen kaw ci anam woo xam ni maar day taali état boo xam ne mooy jël askanam di song la ñu am état boo xam ne ma ne la mi ngi caxat caxatee la nga xam ne desoon nag néew ci ngor ci doomu aadama yi moo nekk ci Sénégal état boo xam ne day jël ak dooleem di ko jaay néew ji doole yi te lépp nag lépp nag ñoom intellectuel yi ne nguur rek ak nguurtu seenu poche yi fees la bañ mukk mu daal di rës état bi fi mu ne Sénégal fi mu toll lu njiin njaag mooma lu am ci réew mi nan ko ko jiiñ intellectuel yi daal di ne ndax nag dafa tàmbalee na créer ay sénégalais yoo xam ne daanaka à part lañu ci réew ñaari xeetu sénégalais moo am ci réew mi te état bi moo ko waral de intellectuel yi naan dafa am benn doomu Sénégal boo xam ne mën na toog ci réew mi ak ci plateau télé yi wax la ko saf nag woote sax nag ñu faat ay bakkan ci ñenn ci réew mi am beneen xeet ci Sénégal gii ay sénégalais yoo xam ne su ñu defee émoticône reetaan sax ñu yóbbu leen su ñu waxee lu ñu war ta wax xaw a jàdd dëngal kaso ñu defee ab post Facebook kaso ñu waxee seen xalaat ci réew mi kaso suñu ŋàññee kaso te ku ca bañ dem kaso ma ni la da ngay gàddaay fa yàllaaxu lu ko may rëbës universitaires yi naan sénégalais yi moo tax ñu bëree ngi noppi ndax ku noppiwul état bi dal sa kaw caxat caxatee la wala mu daal di lay tëj kaso wala it mu daal di weñ sa loxo nga daal di gàddaay daw fa yallaaxu amul benn xeex goo xam ni mënees na ko xeex fi mu ne ci réewum Sénégal ngir mu meilleur janoog ñoo xam ne ñu ngi ñuy caxat caxatee duñu dóor tribune naan maan moo taxit universitaires yi ña ngay sàkku nag ñu libéré Ousmane Sonko nu mu gën a gaawee yéen kaay bi bi naan maan ña ngay sàkku it ña nga xam ne jàpp nañ leen di politique ñu daal di leen di bàyyi nu mu gën a nag daal di andiwaat jàmm ak dal ci réewum Sénégal ndax nag ñi ngi fas yéene dugal réew mi ci guuta goo xam ne maar day taali libération yéene kaay naan maan jeexagul de ñaar fukk ak ñeenti ni yi nga xam ne jàpp nañ leen fan yee ci banlieue bu ndakaaru defeere nañ leen niki demb daal di jël seen dossier nag tàbbal ko ni ku ni nit Hubert Edouard Mendy ak ñamu àndal ñu jàpp leen fukki fan ci weeru bi ma ni la ña ngi leen di toppee association bu malfaiteur daal di lëkkaloo nag ab entreprise terroriste di financer terrorisme di comploter contre état bi waaye tam fas yéene nërmeel état bu Sénégal na fi taxawaayu Serigne Saliou libération naan man daal dinañ ko yóbbu mandat de dépôt juge bu deuxième cabinet moo def lu ni mel parquet bi di sàkku ñu daal di jàpp moom it El Malick Ndiaye yéene kaay bi naan man Ousmane Sonko Hannibal Jim Cheikh Bara Ndiaye nee ñu faj sax bëggatuñ ko maître Ciré Clédor Ly naan nguurug Sénégal ma ne la weesagul man ngeen sowe Ousmane Sonko sowe yeneen bakkan bu ngeen seetaanee ba ñii daal di loof ba daal di faatu de du ngeen am lay ëllëg vox populi naan Pastef si boppam nee ñu seen faatu parti nanguwuñ ko rawatina ak bu Ousmane Sonko Sonko ma candidat te mooy candidat coalition Yewwi Askan Wi ñu fas yéene nag organiser wu derrière Ousmane Sonko moom biram Souleye Diop ci yéenekaay bi nan maître Ngagne Demba Touré gàddaay na am na ci ñeen fukk ci xale yoo xam ne ñoom it daw nañu gàddaay ndax bu ñu del see ci réew mi kaso ñeel leen Walf Quotidien naan waxtu woowu président Macky Sall moom ma nga boole cell ak organiser Sall ku muy tabb yéenekaay bi naan man loolooy coow li source a naan lum ci def it gaawul de te Sall nag ñàkk gaaw gii mën na ko dugal ci guuta xam nga muusantu gi day mujj tàbbal président Macky Sall ci pax source anaan maan parrainage bi dàq nañ ko fi mu ne sàll bu tabbee gaay nga xam ne ñooy rëbële wu am nañu temps ngir daal di jàmmaarloo ak moom président Macky Sall attention le thème mooy yéen kaay naan ko Mame Boye Diao day ma ngay wax di sànni rek nee na moom Mame Boye Diao candidat Benno Bokk Yaakaar bés bu ko doonee ba jël réew mi dana soppiwaat justice gën ko jox doole ca na muy doxee di naqar lu moom Mame Boye Diao politique ni muy doxee ci réewum Sénégal ndax daanaka lekkante rek moo ci des moom Mame Boye nag naan am naa droit nekk ku ma neex te naan président Macky Sall tabb maag ñàkk maa tabb ci yam lépp loo xam ne tabboon nga ma ko ci réew mi man maam booy jaawa danaa ko bàyyi point actu naan man président Macky Sall tabb na mooy saar daal di koy yóbbu ca seteer lobs naan maan ak lu mën a xew ci réew mi bu leen fàtte ni ci tabb gi day président Macky Sall mi ngi ci guddi gu bët setagul source a naan maan yeewi askan wee nga jëm kalaame ji président Macky Sall ci kanamu sëriñ Muntaxa mu baax mi deux minutes pour lire l'essentiel naan maan Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar Sall day bokkaat nañ ci géem bi xaatim nan la nga xam ni moo war a tax ñu bokkaat ci yi bi turbine yéene kaay daal di jox kàddu bu saar coordonnateur bu saage yu sa bopp di tontu nag bay di jum naan kon président bu Bougane ci boppam loo ko mënti waxelit mënoon ni jàpp loxoom ci mag ñoo xam ne ñoo ko wër mag ñoo xam ne ay sàcc lañu mag ñoo xam ne ay politiciens professionnels lañu mag ñoo xam ne ma ni la seen adduna bi yëpp dañ koo nekk ci système bi di sàcc alalu système bi daal di yaxaaskanu Sénégal ak daal di fëkk seeni i ay politiciens professionnels yoo xam ne seen addina ma ne la ba ñu xàmmee ba tey lu ngeen di def politique la ñuy wax dem ba dooni mag nag daal duñ ko bàyyi xale yi wéy di politique ci ñoo xam ne nag ñoo tayle ëllëgu Sénégal tayle waale sax mag ñi ëllëg gi nga xam ne mënoon nañ koo am mu ñoŋ ci réew mi le point yéen kaay naan maan dikkal ci Omar Ba Sénégal amati na ndam ci moom ci bitim réew njiital association bu maire bu Sénégal léegi mooy njiital conseil collectivité territoriale bu UEMOA Abidjan ci boppam lañ ko ko daal di tabbee moom Omar Ba meer bu Ndiob nekki président bu AMS jël ndam la nag ci kaw maire bu Cotonou diggante Burkina Faso Guinée Bissau Mali ak Togo ñoom ñëpp ko jàppale ngir mu daal di jël raay gi woo 24 heures yéen kaay naan man mbay maa ngi ci guuta rawatina mbayum ceeb mi ci réewum Sénégal ña nekk ca maatam naan bor daal moo tax fi mu ne mënuñoo sax tàmbali mbayum ceeb mi turbine yéen kaay naan kon mangaan gaa ngi defi dégâts xale ya nekkoon ca Fass Boy fanweer ak juróom-ñaar ci ñoom andi nañ leen ci réew mi kenn ma nga des ca Cap Vert ndax day faju ña ca des nekkoon ca gaal ga faatu ña nga ñu daal di denc ca bërëb ba libération yéen kaay naan man ca barsaak barzak ga ñetti téeméer ñaar fukk ak juróom ci sénégalais talaata ji daanu jóge ca dax la ñëw fii ci Sénégal juróom ñoo xam ne dañoo ñëpp ña nga ca l'hôpital ba juróom ñett fukk ña ngay xaar ñoomit ñu daal di leen di andi fii ci réew mi waxtu woowu mën sa morom duma turbine naan maan ab promoteur immobilier moo bëgg jël téeméeri hectare ca kër Moussa lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci xëy nara tàbbi géej askan wa nag daal di ne boobule projet àndun ci ndax deful lu dul fas leen yéene suuxal suur soaane ma tëjal ak man ma xamal la ni waa ji yi nga xam ne soxnaam moo dugg ci néegam ci kaw lalam bett borom këram muy def naka sudul noonu ak geneen soxna di coroom ñoom daal nga seen la làmb di def loo xam ne diine nangu ko xel nangu ko ba ca soxna sa waxee